alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah naaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñaanal cheikhu tijaani radiallahu anhu mi nga xam ne mooy sangi mu wulli yàlla di seen tëbbuwaay la ko dalee ci aadama mbëkkal ak bufta bi di wal di ñaanal ki nga xam ne lépp lu ball ci mba mbalkam cheikhu tijaani radiallahu anhu ku ca mos moo la ca mosale ku ca jot moo la ca jotale te mooy sang bi nga xam ne mooy Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu conférence bi nga xam ne moom lañ naaye waxtu waxtaane te mooy waxtaan ci lef ci dundu soxna si di maam Astu Jànqa maam Astu Jànqa waxtaan ci moom jafe na jafewul jafe na ndax pour nga am ay sources yooy dellu yuñ bind yu bari yoo xam ne dafa wax ci moom bariwul kii ñu naay waxtaane comme ni ma waxee ne jafe na waaye itam yomb na ndax sang boo xam ne bu day ni alxaaji Ibrahim Niass képp ki nga xam ne ci moom la ko yàlla jaarale ñu mën koo tuddee ndey mu jaar ak moom fi ndey di jaar ak doom yar ko toppatoo ko ba mu yegsi fi mu yegsi loolu rek doy na tagg maanaam bu ñu waxutoon dara dara dara ci soxna si lu may toog rek naan moo baax moo ñu indil El Hadj Ibrahima Niass kon def naa loolu rek na ndax loolu rek dafa doy tagg dafa dafa leeral boppam ndax jigéen dafa am importance ci dundu. Euh, doomam népp lu lu lu yàlla may nit kenn mun cee génne ay waajuram rawatina ndeyam ndax ndeyam mooy gën di wéet ak moom moo koy gën miin ci waajuru góor yi kon lépp luñ jox alxaaji abdullah mii nga xam ne ñu ngi koy ziyaare ci suñ kanam euh, ci ay ngëneel ci bàyyi mën nañ koo jox soxna si su fekkee joxuñ ko lu ko ëpp itam euh, soxna si dama bind ci cosaanam ak ay jaar-jaaram ak fi mu jógee ba keroog muy tàbbi ci loxo maam Alaaji Abdullahi ak nekk gi mu nekkoon ak waa kër Mame Alaaji Abdoulaye nekk bu rafet bi mu nekk nekkoon ak ñoom ak itam nekk gi nga xam ne gannaaw gi nekk na ko ak bàyyi ca Koosi nekk nañ fa ñaari yoon nekk na fa nekk bu njëkk boo waaj waajuru bàyyi la fa am loolu muy borom këram gannaaw gi dellusiwaat na fa ba fa bàyyi demee gannaaw bu Mame Alaaji Abdoulaye génne àddina nekk na Koosi ak nekk gum nekk Medina gannaaw gi ba yàlla di ko moom ñu wax ne ay cosaanam moom soxna si euh, mun nga ne jolof la bàyyee ko waaye jolof dafa nekk benn station benn wàccuwaay ci seen wàccuwaay waaye seen cosaan gën naa sori loolu ndax mboolem wolof yi boo leen seetee koo ci dàq rek dana am fum mu jëm benn ñu ne mu ngi jógee Mali wala ñu ne mu ngi jógee Mauritanie loolu mooy seen cosaan li ëpp ci wolof néew na wolof boo xam ne amul cosaan bu bàyyeekoo Mali wala mu bàyyi ko Mauritanie ñoom ñii nag ci wàllu baayam euh, ñu ngi bàyyi Mali muy fu ñu doon wax gii di maraxa gi di maxalee gi boo ko seetloo mu ngi ci Mauritanie Euh, gannaaw gi lañ ñëw Fuuta biñ jógee Fuuta ñëw Jolof biñ jógee Jolof nag lañ ñëw fii Saalum nga gis ne moom duul doxandéem comme ni ko ñenn ñi di prétendre di wax ne doxandéem la ci kër maam alxaaji Abdullahi Ñas du fa doxandéem Euh, mbokkam maam alxaaji abdullahi ñas la mbokkam maam alxaaji abdullahi ñas la ci ñaari wàllam yépp kon soxna si moo leen ñeenteel euh, ñëw nekk moom itam seen mbokk duma ci dellu mbokk la ci ñoom ñépp kon fan la sosoo ak fu mu juddoo ñu ne mu ngi juddu ci mu ngi juddoo Jolof ban at la juddu ñu ne mille huit cent soixante-cinq la soxna si judd waaye ñi wax loolu dañoo sukkandiku ci ne wax nañ ne maam alxaaji Abdullahi Niass mu ngi ko magee woon ñaar fukki at kon 1848 boobu léegi soo ko génnee soo ci génnee ñaar fukki at kon soxna si 1868 moo gën a wóor ci lim dund euh, ci moo gën a wéer ci juddoom euh, nga gis ne ba tey itam ñaari waajur yi ko jur waajuram bu góor mooy Ibrahima Jànqa waajuram bu jigéen di Binta ale Thiam waxoon naa ko léegi euh, bokk ci sëti maam Masamba Thiam mu yaru ci loxo waajuram ak ndeyam ñu yar ko yar boo xam ne yar bu rafet la mu nekkoon koo xam ne itam ku fegu la koo xam ne ñépp xamee woon nañ ko yiw ak kersa foo ko fekkaan itam da daan euh, muuru ak lim doon nekk nekk ndaw doon koo xam ne itam mosula ànd ak ay moromam di def yëfu gone loolu ñëpp xam nañ ko ci moom kon daal jàppal ne soxna su baax la woon soxna suñ yaroon yarul islaam la soxna su dëggu la woon ñu yar ko yar boo xam ne yar bu rafet la euh, ci melokaan bind bi ko yàlla bindoon ku taaru la woon duutoon nag jigéen ju rëy lool wala mu wala wala mu gudd da liñ ko gën a xamee daal mooy li ñuy wax jigéen ju tuuti la woon ci mbind nekkoon kitam ku xees dafa xeesoon daanañ wax ne sëriñ bi Mawlana Alhaaj Ibrahim dañ naan xeesaayam bi jëlewu ko ci alaaji Abdoulaye waaye mu ngi ko jëlee ci ndeyam euh, Astu Jànqa ñëw na ci kër maam alaaji Abdullah ñu ne ci 1890 ci la ñëw ci kër sëriñ bi nekk soxnaam waaye bi mu ñëwee ci kër gi itam wax naa la léegi ñi nga xam ne ñoom la fekkoon te mooy soxnaay maam alaaji Abdoulaye ñëpp ay bokkam lañ ñu bokk ci même famille moo tax juboo rekk a fa amoon ak déggoo ak bëggante boo xoolee itam diggante soxna si ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay taalibe Maam Alaaji Abdullah ak njabootam ngi ñoom ñëpp dañ koo buggoon ñoom ñëpp dañ koo fonkoon lu tax dafa nekkoon koo xam ne dafa ubbi woon néegam pour ñeel ñëpp yaatu mën a muñ te am njëriñ dafa nekkoon koo xam ne mën nga ko jàppee ne sën la sën mooy place boo xam ne ñi amut ku leen jox reer kenn toppatoowu leen ca sën lañuy jëlee la ñuy lekk kon ñépp ñi daan ñëw ci kër gi di jóge ci àll ba di ñëw ci moom lañ daan ñëw waaye seen boobu nag yàlla def na yaatu na sën boo xam ne dem na tey ba Jakarta dem na ba fu nekk ci seen boobu lañuy ñuy dund ñi amut fuñ wéeru ñëpp wéeru nañ ci bàyyi te loolu la doon junj rek. mu ngi génn àddina comme ni ko bàyyi yaxalee bàyyi ko yaxalal boppam ci téereem boobu nga xam ne. moom la defoon tuddee ko ar rihla al hijaziya wax nañ ne ba muy dem di ko tàggu nee na ko yaa ngi dem di ma fi bàyyi léegi tey ma dem bi maanaa boo demee dama fi danga may bàyyi ma dee damay dee bàyyi itam ci ngay xamee ne doomi xutbu la yoroon xutbu bi ne ko maa ngi dem waaye dinaa la fi fekk waaw doo dee suma gannaaw mukk doo dee mukk te ma 1356 ci la dellusi ci ajam googu bam bis bi dellusee di fukki fan ñaar fukki fan ak ñett di ñaar fukki fan ak ñett tolloo ak bisu altine ci même at bi 1356 euh, tolloo ak le 29 mars muy weer yu ñu tolloo yàlla daf ko tollale weer yu ñu nekk nii weeru mars ci la soxna si génnoon ci 1937 Serigne Aliou moom la mu bind moom laa tëjee bëri na lool waaye da ngay dégg nag mu naan wa amma ummuhu radiallahu anha fa hiya durratu lyatima waljawharu nafisa alsaliha annaasika alsadiqa alfadila alnajiba alwaqifa bi xuqubi alrububiyati fi lxaali walmaqaali daati siirati alsunniya wala saniya wal amaali alsaalihaati wal afaal almardiya soxna si daal mën nga ne tëmbab yu wurus la wala jamaa la boo xam ne yàlla ko may nit ñi mu nekk koo xam ne ku yew yiw la jaamukat yàlla la woon ku dëggu la woon ku gën la woon ku baax la woon ku daan taxawee aqi yàlla la ci wax ak ci jëf borom jikko ay yu rafet la borom jëf yu mag la lii yëpp Sëriñ Ali wax na ko ci préface boobu nga xam ne moom la def ci téere baay boobu